deuxième combat de la soirée fii ci stadium Lamine Gueye bu Kaolack drapeau Djibi Dia ñaari xale yooyu ngeen ki ñu wan gannaaw mooy xale bi ñaar rëg-rëg nekk ca Yatma ak Ali Dianka ca Kaolack Ngolo ki ñu wan kanam kooku mooy booy bi nga xam ne moo jóge Ocass ñu naan ko Mbossé Géej borom mobilisation bu doy baa ngi noonu toj na nen tojaan na nen rëg-rëg toj na ñaari nen toj na nen ba tojul tojaan na ko léegi nag combat baa noonu ci diggante rëg-rëg ak Mbossé Géej léew ba bar na Mbossé Gueye moom moo laal suuf Reug Reug xaw na ko ëpp poids Reug xaw na ko ëpp poids ñu ngi leew too Reug Reug moo ñuul Mbossé Gueye xaw a xonku maanaam xees ndeysaan xale ba kan moo ko indi ñu na Batousta ca mobilisation bu rëy ba Mbossé Gueye laay lay la laa xale yaa ngay leew too fii ci stade Lamine Gueye bu Kaolack ay waay lamba ngi waay ñi ko namoon ñëpp a ngi koy seetaan stade bi fees na Fatou Mbaye Fall a ngay Moussa Diama ca kaw jàppante nañu jàppante nañu jàppante nañu attention jàppante nañu ñoom ñaar jàppante nañu Reug Reug Mbossé Gueye jëlee na ko Mbossé Gueye daw na Sonko Mbossé Mbossé Mbossé Mbossé lan la bëgg Mbossé poñ na ko daan na ko la ilaha illallah Mbossé ca kawam Mbossé Gueye daan na Reug ca kawam Mbossé Gueye la ilaha illallah waaye sax dañuy stade a neex waay stade a neex waay